man ni am nga am nga yokkute ci tarixa bi. taaliba Cheikh nga nag loo xalaat moom. <laughs> donc pour dire que moom euh, li mu ko waxee moom juriste la man yàlla xam na ni euh, man lu ma jàngul. du ci wax. lu ma xamul du ma ci wax. man lycée Vavaux laa defee sama cycle yëpp. sixième ba terminal. Lamine Gueye ak sa vanvon. waaw ñu ngi leen di nuyu. voilà anciens yi. ñi ma ñi ma jàngandool ñi ngi may dégg. général Mor Seck sapeur pompier. général Jean Baptiste Tine de la gendarmerie ambassadeur en Russie. ñoo doon toog benn banc. ñu fa jaar ci ay kilifa. Mimi Touré. footballoon nañu fay nañu Dakar Gorée man ak moom. ñoo amandoo bag. donc bare nañu. ñi nekk ci pouvoir bi yëpp aujourd'hui ñu ci bare 60 ans révolu donc. ñoo jàngandoo. defandoo lépp. d'accord bu tax na loolu mu wax question de droit la conseil constitutionnel am na prérogative mhm. man lu may diggal sax les chef de parti. oui les oppositions comme pouvoir. Mhm. puisque boo nekkee ci politique. da nga war jàng. Mhm. jàng. du rek am na maîtrise wala am na doctorat. wala jàng du rek. man kat euh, économiste laa woon fële ci ministère de kii def naa politique fa mu nekkoon maa fa gagné léegi jox nañ ma benn agence wala def nañ ma ministre. Hmm. saa su ne dañoo war a jaar. waaw boo gisee ñu daan def l' école du parti. Hmm. taawu Senghor. malheureusement taawu Abdou Diouf hmm. ah ñu daan gis euh, ngoon su nekk. maa ngi nuyu Cheikh Tidiane si au passage sama mentor. Euh, sama xarit mm-hmm. waaw. Euh, yal na ko yàlla jox kattan delloo si ko santem mm-hmm. donc dem rek ñu ngi wax tey ñu ngi waroon gisee sax ni émission bi moo tax gisee wuñu. ñoom dama leen daan gis ñuy dem à l'école du parti. ngoon su nekk. moom ñoom Babacar Sadikh Seck. Ah, ñoom Saliou Ramaka. Euh, Djiboka. club nation et développement mais di jàng. léegi dangay gis ñu ne lekkool école du parti le directeur lekkool l' du parti c' est un tel nga gis ko mu dem ci parlement sud afrique di xeex ak jigéen kooku du jàngale jikko bu baax tey jël naa engagement jéegi mhm. comme yow droit nga jàng mhm. yow léegi yaay sama professeur droit eh. <laughs> man nag dinaa la jàngal planification dinaa la jàngal économie mhm. jàngal la administration coopération internationale <laughs> kii c'est le rapport sur la coopération au développement eh. boo xam ni ñun ba nu ñëwee ministère du plan <laughs> en 84 Mamadou Touré venu du fonds monétaire ñu nekk stage foofu ensuite Cheikh Hamidou Kane ñëw cinq sixième plan septième plan ñu ñëw naan ñu de ingénieur lañu ñu yóbbu ñu ci salle de conférence bi ñu toj suñu xol mhm. commencer par le ba jàngale lan mooy programme triennal d'investissement public lan mooy budget consolidé d'investissement lan mooy boo fa jógee sous secteur secteur primaire. Mhm. secteur secondaire. Mhm. secteur tertiaire ah quaternaire ba ñu jox la cellule nga jóge fa dem ci division ensuite direction boobu da ngay ñëw jàng. d'accord. te chef du bureau du kuréel sax mën na jàngal dañ daan jàng administration. te boobu on avait une administration très forte. on avait une administration très forte mais léegi xale yi dañ jàngatul. Mhm. la promotion par la politique. c'est pas une bonne chose. parce que ñu ñuy defal promotion di leen jox ay ndombal tànk. boo politigul bokkuloo nga ñëw xamuloo dara. c'est pas les meilleurs. waaw xamuloo dara xamuloo dara dem dem dem euh, kërti kërti. Mm. Euh, négocier ba am benn maîtrise benn dem ENAM def ko deux fois échoué génn nekk administration civile toog ci plateau yi xas société civile ku nekk nga xas ko. ah. ba pare. ñooñu ñooñu jiite léegi. waaw société civile nañu dem liggéey yow nga yor liggéey yor ñetti ministères yu ñu boole yor fédération nekk maire joxel nit ñi liggéey mais donc li may bëgg wax mooy nañu joxante xorma. nañuy joxante xorma aujourd'hui li nga xam ni moom la ñuy wax jàmm. la paix c'est un problème de comportement. Aujourd'hui, on a une crise sociétale très profonde. Mm-hmm. Une crielle de mots qui gangrène notre société. Mm-hmm. La corruption et là, la concussion, hein, euh, l'impunité, euh, le non-respect de, donc des anciens, des imams, des oulémas. Hein. Loolu ñun ñëpp on est responsable. muy imam yi di xalifa yi du ouléma yi chef d'état. Mm-hmm. gouvernement les ministres ku ci nekk am responsabilité. enseignants yi. ba tax na li ñu doon wax léegi jàmm lenn c'est un comportement. Mm-hmm. du rek dem ci discours bi ah man di dem naa ci appel ba wax naa fa woote naa fa jàmm. le lendemain ci sort mille policiers. lu ñuy jëfe la. fii ñu nekk Sacré-Cœur nelawatuñu ba xandoor te ñoom yóbbante nañ ma conseil de quartier beeg imam yi wala élément yi. Mm-hmm. c'était un quartier paisible kër góor gi mais léegi kenn newatul ba xandoor que lan. waaw Ousmane Sonko nee na c'est di jurat kële ni ko waaw. ku dee sa yow yow yow comme ñoom bar far Bongo nee nañu nañ la rey ak la Diop nan la rey boo deewee ma doon say jabar. yooyu nañ ko jël teg fële. violence verbale malheureusement violence boobu baaxul. xale bu am xorma. doo wax yooyu. jullit doo wax yooyu. doo yéene sa moroom. deewal ma takk sa jabat loolu du lu baax. président Macky Sall ni ko waxee man xam naa ko bu baax. Mm. ku xam xorma la. ku ku ku ku wekk nit la. man ba may dugg administration boobu Macky mi ngi jàng. waaw Boun Abdallah mu ngi jàng. waaw ba tax na président Macky xam naa ko wax dafa laa ñëw sama bureau. bi mu ñëwee Washington normal nañu ba ma fay jógee dama ko indaale benn prix ndax médiation bi mu def au nom donc des Africains avec à la euh, entre la Russie et l'Ukraine ba ñuy voté foofu pour l'homme de l'année mm-hmm. ah Zelensky moom la gars yu bëri votel ñenn votel euh, Poutine mais man moom laa votel ñu jox ko prix boobu te boole ci nag dafa liggéey am bilan d'accord puisque man loolu lay évaluer nit indicateurs yi ah ñaata moo dugg ci xaalis depuis 2010 mm-hmm. dëkk bi c'est important par secteur mm-hmm. waaw ba tax na nag loolu aussi warul tax moom aussi mu ni tànk du tàlli tànk du banque c'est-à-dire euh, foog nga am koo xam ni ku lay wax dëgg. waaw c'est clair mën nay recevoir nit ñi di recevoir kilifa diine yi société civile nekkuñu fi di taxawalu dañu am seen role bien sûr dañuy liggéey. mu Ndiaye Cissé il a son liggéey. Alioune Tine il a son ingé liggéey. Gassama il a son liggéey man miy dox ak yéen imaam gi ak xilaafa yi dafa ma dab rek. puisque ndono la <laughs> mais man économiste là c'est devenu un grand expert j'accumule 38 ans d'expérience en matière de coopération internationale planification développement donc ba tax nañ nañ jox nit ñi seen cër donc bu fekkee ni ñiy politique rek ñoom la ñu compter ñoom la ñuy recevoir ñeneen ñi basta loolu baaxul du indi jàmm ci dëkk donc jàmm nag moom comportement la nañuy defaree jikko yi dëkk bi jikko yi ñoom màbb li ñu doon wax ànd defaree jikko yi 2009 hmm. ma ñëw ci Ousmane Ngom déposé récépissé mu jox ma récépissé en defara jikko yi convergence pour le de comportement après gars yi soppi ko def ko sàmm jikko yi mais sàmm jikko du rek affaire criminalisation de l'homosexualité et la la le combat contre la franc-maçonnerie que gëm franc na dem ci loge am yow dugal sa zawiye kële dugg ci kiyam jàng ay xasaay itam laa kum diinu kum la diin ku ci nekk la gëm que gëmul yàlla sax ah animiste bale nekk maire de fële ca booru Fatick. bàyyi ko waaw donc bàyyi ko mu gëm ni mu. d'accord alors ba tax daal lool daal laay woote ñëpp. bu ñu bëggee ah, jàmm am. Mm-hmm. ba pare nag lenn ka nga xam ni ah, maa ngi ci plateau Sen TV de Bougane. Mm-hmm. foofu laa waroon commencé nuyu la maa ngi lay nuyu di nuyu sama bàjjen Seyna ba sëg ca Ndar. Mm-hmm. dama lay wax ni la bu fekkee ni candidat nga comme ni mu ko waxee. dama nguuti parrainage. Cheikh Bamba Dieye candidat nga dama gis parrainage képp koo xam ne candidat nga commencé ngul parrainage d'accord bés bu ngeen toogee fii ba octobre jot Macky Sall sëgg ku ñëw dina la dóor ba nga tëdd d'accord loolu loolu leer na alors loolu sax dina ci ñëw parce que il nous reste benn tour de table mais dañuy jox temps de parole ak euh, honorable Malick Gueye euh, li ma doon wax léegi dialogue bi doyen di proposé euh, li ko plombé bokk na ci li ne suñu kanam ay procès yu nga xamante nii ña cay dem jàpp nañu ne am na main politique bi ne ci ginnaaw leneen li également gis nañu ne véritablement troisième mandat bi nga xam ne wala candidature bi ñoom jéegi di porté pour président Macky Sall fii ak 2024 am na ñu ci bëri ñu ci d'accordul alors loolu yëpp est-ce que dina yomb euh, ci ñu tàbbi ci ab dialogue bu nga xam te ne acteurs politiques yëpp dañ dañ koy waxtaanee sachant que ne am na dossiers yi nga xam ne mi ngi fi tege te tàng jër. Ah, merci Mouhamed bon sa à dire que. boo dégloo li ma am nga xam ni li ma doon wax tout à l'heure daf ko conforté absolument sur le fait projet de société en fait, euh, les hommes religieux, ils ont leur mot à dire par rapport à, à la, au, au, projet de gouvernement. Mm -hmm. Donc, parce que l'expérience, je suis avec l'im expliqué, bon, je pense que Amko à l'intérieur aussi, bah, tout il faut pas isoler en fait certaines sommités yoo xam ni am na lu leen yàlla may. Ah. xam nga xam nga tout à l'heure ma ma dafa wax dafa wax tout à l'heure ma c'est vrai elle a raison que en fait. bon Léon Blum wax na ko il ne croit pas aux vertus des hommes cest à <laughs> fii ku fi gëm ni bon doo changer bon sa affaire la mais l'essentiel mooy li ma gëm man mooy en réalité y a pas d'homme providentiel je parce que doomu aadama bu moo yàlla moo ko bindee noonu. bu demee ba am pouvoir en fait dafa am lenn loo xamante ne buñ ko boo moytuwul rek bu système bi dëgërul ah mu mu am ay dérives. y a des dérives depuis bi fi Senghor nekkee ba tey bon oh, dañuy jéem a parcourir un peu par l' expérience ñu l' empirisme mag ñi liñ fi bàyyi mais Mamadou Dia Senghor mais histoire am ba tey leerul les ombres et les lumières Cheikh Amadou Kane bind na ko donc y' a l'histoire politique du Sénégal commencé wul rek en terme de conflit fii nii donc je pense que nañu nañu de manière globale moo tax man mhm. xam nga je pense que Mouhamed c'est la troisième fois ñuy def débat sur euh, yoo xamante ni dafa am benn discours buy ñëwaat. Hmm. c'est que ñun suñu parti bañ koy def di defar statut yi dañ ni nos éléments yi dem dans les télévisions nañu jéem a wax ak les acteurs politiques ñu indi débat de profondeur. Hmm. débat personne ñu teg ko fële. Sénégal malheureusement nag franchement environnement bi c'est grippé de telle sorte que kenn xamul loolu nit di proposer sur l'emploi des jeunes. kenn xamu ko parce que en réalité d'ailleurs am na ñoo xam ne sax utatuñu débat yooyu. parce que fii pour nga am un de vues YouTube. la ngay def man mënuma ko Oustaz mënu ko Mouhamed mënu ko keneen mënu ko Assane mënu ko si ñun duñu saaga kenn duñu yàq nit. il faut que aussi les acteurs pluriels maanaam les journalistes les acteurs politiques. ñu jàppalante ci loolu. ñu ñu gars yi nañu indi wax lan lañ proposé sur la réforme de la justice. sur le secteur informel nañu yow deux cent mille emplois des jeunes yi génn ñu yokkaat ci cent mille trois cent mille par année mais loolu nañu wax lan ban proposition bombe boobu nu ñu koy régler mm-hmm. parce que ëllëg si on continue dans cette dynamique là euh, te trouver wuñu des solutions aux vraies problématiques mais 2024 kii falu état de grâce un an la yam après booy yi génn ci mbedd bi ah attention les mêmes booy yëpp même booy yi ñooy génnaat ci mbedd bi donc le problème de c'est pas l'élection du président de la République parce que yàlla mooy fal ñu la yàlla mooy fal doomu mooy fal président de la République mhm. te cette fois-ci am na benn leader moo woo bërki démb ne ma booy ndax yaa ngi wut parrainage sama grand la nag ma ne ko maa ngi ci parrainage bi mhm. mu ni ma mu ni ma élection yi chance la parce que xamuñu dañ koy tirage au sort xamuñu kan mooy nekk vingt cinquième attention ah, fii am nay candidat yu ngan bari yoo xam ni bu ñu demee conseil constitutionnel waruñu sax ne dinañ dem non dañuy tirage au sort bi amatul rang di mbëkkante <laughs> léegi du mën nga ñëw nekk vingt septième am vingt six doublon fooy jàlle quand même non non non attention ah, parce que élection présidentielle yi maanaam fi ñu jëm en fait euh, je veux dire euh, nañu indi programme indi offre politique journalistes jàpp lañu ñu ci ñu waxtaan ci les sénégalais fal sur la base de projet de société voilà maintenant nag bu fekkee ne par exemple aujourd'hui dañu dem ba nekk dans un environnement politique boo xam ni je veux dire nit ñi amatuñu sago pour maanaam wax seeni xalaat mais fo foofu war nañ delluwaat pour que nit ñi mën am sago ñu ñëwaat au vrai débat politique. d'accord ñun loolu loolu loolu la ñuy loolu la ñuy théoriser maintenant. chamboulement bi war a am vers euh, d'ici d'ici dix mois dafa am deux éléments yoo xam ni euh, je pense que ñu dugal ko dans la corbeille de réflexion pour les chefs mhm. nga xam ne ñooy réguler de manière informelle comme comme comme ni ko Assane ñun ñu jàpp ni dañu war a dem de manière formelle mhm. euh, mooy la question de la troisième candidature foog ñu légiférer ci mhm. wax ci mu jeex ñu tegee ko tegee ko de l'ouverture des, des candidats. yi nga xam ne bëgg nañu nekk candidat à l' présidentielle. ñu bàyyi leen ñu dem ñu bàyyi leen. bañ ci gàllankoor ñëpp. ñu ñu dem à l' présidentielle. bu ñu demee après képp ku yàlla jox réew mi. Mhm. ñu xam ni yàlla moo la jox réew mi. très si di ñëw di ñëw donc on va on de d' très vite parce que ñu may acculer ne ma jeex. waaw mais jéegi euh, bëgg nañu ñëw ci déjà loolu mais euh, euh, yóbbaale rek cette question de la troisième candidature bi nga xam également euh, l'espace politique ak surtout li ñu gis fan yi muy chamboulement ci wàllu magistrature bi euh, à travers euh, le le conseil supérieur de la magistrature ñu bëri jàpp ne war nañu mën a leneen ci ginnaaw muy waajtaay bi ñu nekk di def ci élection présidentielle 2024 ban jàngat ngay def ci loolu. jàngat bi may def mooy balaa may dem ci question boobu dañuy njëkk taxaw ci benn affaire mm-hmm. wax naa la j'ai vingt ans mm-hmm. d'expérience politique. def débat nag di wax sur soi c'est quelque chose qui est très difficile d'abord ensuite quand je suis avec d'éminentes personnalités c'est un peu compliqué pour moi parce que dañoo nekk ci benn société ñu wax ko am loo xamante ni dafa war ci mag orme mais bu fekkee ni su du ñuy nekk dans un débat contradictoire mm-hmm. mais suñu amee benn âge bi rek je ne suis plus à l'aise mm-hmm. pour mën a dugg réellement dans la contradiction mm-hmm. parce que quoi que l'on puisse dire mais j'ai des repères je suis sénégalaise surtout Thiado laa nag Thiado nag dafa am repère pour man c'est des valeurs c'est l'honneur c'est le, le, le sens de la parole donnée mais aussi ma am lu ma gëm ma am tarixa bu ma bokk donc loolu dama ko bëggoon ubbi rek di la wax ku bëgg Sénégal doo ko gën bëgg ki xamante ne dafa takk caq man dama bokk nëbbuma ko man dama far nëbbuma ko ak président Macky Sall je suis juriste nëbbuma ko je t'ai dit que je suis une libérale j'ai subi une formation et ce que je reproche aujourd'hui à la nouvelle génération dont je fais partie. Mhm. je te dis que dama bokk ci tranche d'âge bi yor politique bi léegi et mu violent et que je dénonce avec la dernière énergie. la fondation Friedrich Naumann nous a formés dès qu'on mhm. a fait le tour de l'Afrique. pour faire la formation des formateurs on est allé en Allemagne pour faire une formation sur ce qu'est le libéralisme lii moo tax ma ànd ak président Abdoulaye Wade ma seet parmi les les ki ma ci doy la muy le président Macky Sall basé sur deux choses il a adhéré à l'international libéral d'abord ensuite il sait ce que c'est que la liberté et la responsabilité loolu di ma bëggoon leeral ma lay wax mhm. benn yëf mhm. nos de défense et de sécurité de yoon bu nekk boo fa génnee rek leen di gis parce que nañ àtte dëgg nag Mohamed mm. yow am nga droit xëy di dox sa soxla keneen am na droit aussi xëy di dox soxlaam comment est les hommes politiques peuvent faire on sort d'une élection présidentielle en 2019 jusqu'à aujourd'hui en 2023 ñu ngi campagne nañ waxante dëgg nag chaque jour nga bëgg dem marché nga dawal oto chaque jour nga bëgg dem ci rond point nga bëgg def marche les forces de défense de sécurité n'ont même plus de travail à faire dul topp l'ordre public pour que pour que ça soit respecté. Mm-hmm. non il y a un temps pour la politique d'accord il y a un temps pour travailler. d'accord mais il de part et d'autre man ah. jëluma camp foofu noonu dama doon préciser nag dama faral nag président nag et je suis une femme politique et engagée et je demande aux jeunes de mon pays de s'engager parce que gis fi ñu ko bëgg yóbbu pour man du noonu du xamadi moo koy def mm-hmm. du ñàkk d'accord sama imam wax na ko léegi c'est que tu participes à la vie de ton pays c'est parce que tu vas aller aux instances où tu mot auras ton mot à dire parce que n'est pas nommé et élu qui veut mhm. le décret est d'abord divin oui avant que avant muy nekk la troisième candidature Malick maintenant dialogue politique bi waaw tax ma soxla soxla de waaw waxtu bi dialogue politique bi léegi ñu ne ma dialogue politique bi mhm. am na woon kan moo doon woote c'est le président Macky Sall yàggul sax Covid 19 bi woote na waaw may ma tuuti rek Covid 19 Covid 19 lañ génn yàggul mu nekk pandémie. deux ans réew mi mi nga képp taxaw avion dawul bateau dawul oto dawul. Hmm. dëkk bu jotee nañ ko wax y a des facteurs qui sont endogènes et exogènes et je parle sous le contrôle d'un économiste ou d'autres personnalités qui sont là. dafa am loo xamante ni c'est des réalités qu'on a eu à vivre de part et d'autre ni am na loo xamante ne war nañu cëral surtout ñun ñi état nous sommes les responsables en premier en amont comme en aval parce que ñun la ñu takkal càq bi man je le dis toujours notre responsabilité est engagée mais nag nañu waxante ne dëgg nag les acteurs politiques d'aujourd'hui et les derniers qui sont venus moi je le dis et je s'assume mm-hmm. ñooy wax di saaga ñooy utiliser mortal combat ñooy utiliser terme yoo xam ne tey ñi ma bokkal plateau bi moo tax mënu ma ko wax. Mm-hmm. waaye léegi li la justice quand la justice doit être faite quand le droit doit être dit c'est des hommes et des femmes qui doivent le faire. Mm-hmm. et qui ont été choisis sometimes d'autres qui ont eu à faire des des des des des concours ba ñu àgg foofu il faut que ñu dëgëral suñu institution. très bien institution yi Senghor dafa dem mu daxaw Abdou Diouf 40 ans après il est parti tout le monde pensait que Sénégal dafay nekk ndëgg sërëxal je fais confiance à ces institutions à ces hommes d'État Ablaye Wade bi mu demee noonu Macky kii ñoo koy remplacer le président Macky Sall ki koy remplacer day demaat institution yi mu nekk tel xëtil xaq bi xaq xaal ji <laughs> alors léegi nag waxaguma ci comme candidature président Macky Sall très rapidement les indicateurs comme on a eu à le dire le bilan matériel comme il a eu à le dire il a eu à le dire moi je parle du bilan immatériel mm. mooy li nga xamante réalité nit moo ko moomal boppam te kenn du ko dul baaraam. la restauration des dignités humaines suñu cité religieux yi yëpp. mu dem tabaxal leen delloowaat leen orma bi. jël projecteurs yi braqué ko si ñoom. ñu jël les bourses ñu jël les ponts man mii une fille du Fouta jóge foofu dëkk à Saint-Louis. Ah, ñu defal ma pont attention tu m'as posé une question danga may bàyyi nag ma sama xol seet nag <laughs> man rek maa fi jigéen nag. fii man rek maa fi jigéen nga ma may Mouhamed il a le droit de dire que je suis candidat. Il a le droit de dire que je ne suis pas candidat. Mais en tant que citoyenne sénégalaise, que je choisis président Macky Sall comme mon candidat pour 2024. Conseil constitutionnel va trancher et la population sénégalaise va décider. Il faut qu'on fasse confiance à cette population sénégalaise. Alors, merci. Doyen, waxtu bi jeex na en une seconde rek quelle quelle solution peut-être crise très rapidement ku nekk que wax nañ ko fii c'est respect des des faut ñu respecter les il faut ñu respecter les institutions <laughs> il faut que ñun tamit ku nekk respecter sa kàddu absolument jël say responsabilité bañ jël intérêt supérieur du Sénégal teg mhm. bañ a jël say ambition personnel teg mhm. bu ñu ko defee peut-être dinañ mën am solution tàmm nañ nag ba élection jub see ñu ñu tàngal dëkk bi ba ñëpp foog ne day tàkk. d'accord mais alhamdulilah a chaque fois. jàmm yàlla dimbali ñu ba jàmm. ñu def le la responsabilité. mais population yi surtout la majorité de la population nga xam ne nekk ñu dans les partis politiques. Mhm. dañoo wane toujours maturité. dal ak calme tey souvent ñoom nag ñooy sauver la situation. absolument merci beaucoup une seconde. très rapidement ñu tàggatoo bon c'est-à-dire que notre parti on ne cherche plus de minutes militants. je pense que ñun on a on des adhérents. pourquoi ça parce que militantisme amatul njariñ. dans l'évaluation politique au Sénégal. non c'est que je le dis de manière. non xamul tax parce que ñun li ñu bëgg mooy. Uh-huh. des forces de proposition. d'accord voilà. le militantisme aveugle. d'accord d'accord moo tax li ma li ma jàpp fi nga xamante ni professeur wax na ko tout mhm. mooy euh, euh, ñu mel nii bëgg nañ leen am dans nos séminaires populaires parce que ñun aussi sur le côté de l'éducation par exemple mhm. nous on a dit qu'on va aller vers une assemblée de l'éducation ministère de l'éducation nationale débat yi mooy est-ce que dañu war am assemblée de l'éducation nationale. wala assemblée de la santé. Mhm. parce que acteurs yi dañoo bari. ndax dañoo war am ministère de la santé. wala ministère de l'éducation nationale les questions c'est des réformes yoo xam ne débat yi ah, nañu ah, indi ci loolu. maintenant nag tribunal ak conseil constitutionnel. ak ah. xeex ci mbedd bi loolu en fait warul empiéter. Mhm. sur le débat de profondeur sur le débat politique. très bien d'accord très waxtu bi civisme. Euh, APR aussi bu ñu bëggee naa ñëw defal leen. d'accord yow war beneen bi daal mooy li may wax mooy. Hmm. ah euh, yéen am ngeen bilan defal leen seen bilan. bàyyi waxu këcaw këcaw. ñi mën a bind nañu bind. Hmm. que am na ñoo xam ne yàlla jox na leen talent boobu ñu ngi bind. d'accord beneen bi mooy ku nekk daal na respecté kii yàlla rek a xam. Hmm. donc ñi nga xam ni euh, am nañu ngànt mënuñu dem màkk xëy na ñu dem màkk mm. ah que soxnaam bi de maa leen maa leen préparé daaw ñu dem màkk ñoom soxna Khady Kébé maa ngi leen di ziar <laughs> jox leen dimension de am nga xam ni ni ngay ajee ni ngay jàppeek lépp ngi ci maa ngi euh, je maa ngi ñaanal Cheikh Ahmad Tall mm. professeur Ahmad di sama xarit euh, di kenn ci man ma yor léggam mu jox ma